asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke moom sëriñ Saalihu mooy dellusiwaat di sant yàlla di feddliwaat pas-pasam ci sëriñ Touba di sant nag mbooleem taalibe yi ak xarit yi rawatina daayira soppe sëriñ Saalihu yi di am tuuti rek lu mu bëgg a leeral te lépp di cant muy bokk yi nga xam ne danoo am yéene di jàpp ci liggéey daara yi mu jëm ci colog dongo yi sëriñ bi wax ne dafa gis ne teraanga lu mu rëy rëy ak lu mu rafet rafet su masaa ñëw ci sëriñ bi ñooñ alxuraan rek la koy jox di leen jox ay yére yu seer ak ay laj koloj ak di leen wutal ay dëkkuwaay sëriñ Cheikh nag wax ne noonu rek la am yéene ci ñiy jàng alxuraan ak ñiy wut nga ngërëmul yàlla ba tax na bu sañoon ku leen di wutali ay yére donte menn bu bu lay doon na doon bu mu yees waaye daal aw fitam mayatu ko mu leen di jox ay fëgg jaay kon képp ku leen bëgg a wutal ay yére mën ngaa jokkoo ak sëriñ bi wala nga def ko yu kenn solagul su doonee ay piis sëriñ bi dana ko ñawlu lii lépp nag bëggal nu njariñ rek moo tax sëriñ bi di ko wax ndax kuy jox yàlla da koy jox la gën a baax te dëgg-dëgg jox yàlla mooy jox ñooñ alquran ak ñiy wut ngërëmul yàlla kon sëriñ baa ngi sant ñëpp di leen gërëm di ñaan liggéey bi yàlla nañ ci dajeeg tawféexi sëriñ Tuubaa wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.